ci waxtu wu jot muy jotaayu fàttalante ak nafar ci ay tomb yoo xam ne yu am solo lay doon yu yitteen mbooloo mi kon tey di ñu fas yéene ñëwaat ci beneen mawdoo Euh, lépp nag waa daayiratu Muxaddamatul Xidma di ko amal di ko saytu ci mboolem weeru koor gi di commencé fi mu tàmbalee fi muy jeexe tey ñëw ci tomb boo xam ne bu yitteel la mu jëm ci wàllu taxatu zawjaat muy soxna yi nga xam ne ci jullit bi mu mën a denc lépp benn ba ñett ba ñeent ci këram waaye loolu mën naa am ay jeexit loolu mën naa jur léeg ay jafe-jafe buñ ko dee jéem a doxal itam di ko jéem a dund léeg-léeg ci gis ay rëq-rëq ak ñàkk daal ci biir kër gi ak ci biir njaboot bi xëy ndax loolu kon suñu tomb tey foofu lañ koy jëmale muy jeexit yi nga xam ne daal limu goo xam ne dañ koy soxna yi dana koy limu ci suñu biir kër wala am gi ñuy am lu ëpp benn soxna jeexit yi mën a jur ak jafe-jafe yi mën a indi lekk loolu bu ñu ko dee xool ak yan solution yi ci mën a jur yan solution lañ mën a indi ngir mën a réglé wu loolu lañ bëgg a waxtaan tey muy athaaru ta'addudi zawjaat muskilaatun wa tatbiqun wa xulul yaakaar naa tomb bu am solo bu jar a bàyyi xel ndax dafa aju ci loo xam ne lu jara a yitte wala muy wàllu famille bi muy usra bi ci jëmmam xam ne bu dalee tegu ci yoon wi mu war a jaar yaakaar naa société bi lu bari ci lu ñuy lu naqari mën naa bañ a mën naa bañ a amati wala lu ñuy naqari lu bari mën naa saafaraw ndax daanaka mooy départ bi société bépp booy xool ñu ngi jóge ci ay njaboot ci ay usar lañ jóge kon foofu lépp lu fi laat rek jar naa xool jar naa jàngat tey nag ñu toog suñu ustaas benn borom xam-xam bu mag ñu yàgg koo dalal ci jotaay bi muy sëñ Fadel Bosso Thierno nga xam ne moom dugg ñi xam leet ci jotaay bu mel nii yàgg na fee jaar yàgg fee traité ay tom yu am solo kon moom lañu war a àndal ci tom bi nga xam ne ñu war a waxtaan tey muy athaaru taabudi zawjaat muskilaatun wa tatbiqun wa xulul yaakaar naa loolu am am solo la na ñëpp bàyyi xel di ko ñaanal yàlla ndax moom ay jéegum yëpp ci wàllu xam-xam rek la ko jëme ak gëstu ak bind ak jàngale ndax bokk na ci ñu jiite daara asar yi gën a mag muy fële ci Thiès asar bu Thiès Cheikh Mahamadul Bachir moo ko jiite dim jàng lépp mu jàng ko diggante fii ak bitim réew fële ca Caire génn pilote charia wal qanun yaakaar naa kon lii ñu koy jox jox lañ ki ko war a jox ñu koy ñaanal yàlla rek mu jàppale ko kon dañ ko koy daal di jox rek mu tàmbale ak ñun ci liggéey bi bismillah si fàll mbokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu leen ziyaara ci weeru tedd wi ñu nekk di ñaan yàlla sunu boroom tabaraka wa taala mu nangul ñu sunu koor ak mbooreem jaam yàlla yi ñuy def di ko ñaan tam mu defal ñu tawfiq ba li ñu fi bëgg a wax ñun suñu bopp ñu jariñu ci ñi ñuy déglu itam jariñu ci te sunu boroom def ko muy bind yoo xamante ni day jëriñ ilaa yawmi diin ni ko sëriñ bi waxe bokk yi sax nag tomb bañ ma joxoon mooy al alaaqa bayna darairi wa athaaruha salbiya fi usra waaye maa ko xaw a soppi tudde ko athaaru taadudi zawjaati muskilaatun fi tatbiqi wa xuluuli di tomb boo xamante nii nag ku ciy waxtaan waxtaanoo ci lu ñàkk solo yaa ngi waxtaane loo xamante ni ak jaamu yàlla la muy lu aju ci wàllu sëy ak jaamu yàlla la ndax li tax mu nekk jaamu yàlla mooy dañ ci roy yonente yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam di ko roy ca sunnaam soosee te jullit nag waxtu wu nekk ginnaaw jullit mooy ku tënku waxtu wu nekk war nay seet la yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon def mu cay jéem a roy kon nag buñ dee waxtaan ci tomb boobu sëriñ bi jujju léegi te mooy limu ay soxna buñ ca dee waxtaan anam gañ koy jële mooy ci anam bi ko lislaam gise ndax jullit la muy firi mooy ku tënku te ca tënku mooy ci ndigali lislaam ak di mooy tandiku ay tere kon waxtaan wi duñ ci xaabaabal bu ëpp ci limub soxna ni ko nit ñi gisee déedéet ni ko lislaam gisee ci lañ koy gën a wéyale waaye nag du tee ñu laal nag ni ko nit ñuy dunde ndax dëppoo naag na ko lislaam bëgge woon wala déet kon lu mel noonu nag ku waxtaan yaa ngi waxtaan ci mbiram diine yaa ngi waxtaan ci loo xamante ni itam nag jullit bu nekk war na koy nafaraat ko xamoon man caa fàttali ko su fekkee fàtti woon na koo xamutoon man caa xame mbiram ay soxna yu limu nag njëkkewut ci lislaam loolu ku ko xamutoon na ko xam njëkkewut ci lislaam yàgg na fi lool ndaxte wax nañ ne yonente yàlla ibrahim alayhi salaatu wasalaam amoon na ay soxna yu limu wax nañ ne itam yonent yàlla isxaaq salaam amoon na ay soxna yu limu naka noonu yonent yàlla yaqub ak yonent yàlla daawud ak yonent yàlla suleymaan te ñooñu nag bu dee ci wàllu jamono ñoo jiitu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu salaam kon su fekkee amoon nañ ay soxna yu limu bu lislaam dikkee daf ko fedd liwaat waaye sosu ko kon ñu xam ne lislaam sosut ay soxna yu limu waaye daf koo limité nag sosu ko waaye daf koo limité diglewut nit ñi ñu wut ay soxna la ko ci seen mbagg ne mënu leen koo ñàkk def waaye daf leen cay jox ab sañ-sañ ñaar yëpp nag wuute na digal la mbir tane ne mënoo koo ñàkk a def ak digal la mbir tane am nga sañ-sañ bi waaye daa la ko tënk ci ay sart kon lislaam andiwu fi ay soxna yu limu waaye daa dafay ñëw fekk ko fi mu limité ko ba noppi tënk ko ci ay sart ne ku ko man man na ko ku mën a tënk sart yow man na ko ku ko mënul nag jëragut nga ciy dugg man ngaa nekk ba keroog nga koy man looloo tax nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu dikkee gis nañ ne amoon na ay soxna yu limu kon kat dekate wàccagut jaar-jaar ya maamam ya jaaroon kañ ko royloo woon mu yonente yàlla ibrahim wàccagut yoon woowee ba tax na amoon na ay soxna yu limu waaye itam nag bu ñu waxee ne amoon na ay soxna yu limu itam nag nañ xool lu tax mu jëloon yooya soxna ba xam ndax daf koo jëloon ngir li ñenn ni noonu lislaam yi wax ne ngir bëgg a topp bànneexam rek wala bu ci nekk dafa am sabab su wér soo xamante ni sababu zahir la soxna mën nañ koo joxoñ ne xëy na lii tax yonent bi alei jël soxna si wala soxna saa loola nag am na sabab yoo xamante ni ci wàllu social lay dellu am na yoo xam ne ci wàllu tëraliin bu mu bëgg juddi yi di ca roy la am na ci loo xamante ci wàllu doxaliinu jamono la muy politique bu dee ci wàllu social am na ñoo xam ne ba leen yonente bi aleyhi salaatu di jël loola la ca bàyyi xel ku mel ne sunu yaay xadijatu bintu xuwaylid nga xamante ndey la ci jullit yi ndax suñu borom moo tuddee soxna yonente yi yonente bi aleyhi salaatu ne mooy ndey jullit yi annabiyu awla bilmuminina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum laaye juróom benn ca sóorat ahzab soxna xadija moomu bi ko yonente bi alei salatu nañ ne kër bi alei salatu ñi nga faran fekk bi alei salatu wasalaam ak soxnaam soodu soosu di xadijatu bintu xuwayli ñoom nga fa doon fekk xanaa ay surga ak njaboot bu sew looloo tax nag bi ko yonent bi jël mu ngi toll ci ñaar fukki at ak juróom moom yonent bi ci dundam soxna Khadija toll ci ñeent fukki at te buñ dee seetlu kat nekk naag soxna Khadija moomu lu ba ba ni génne àdduna moom suñu yaay Khadija te booba yonent bi jéggi na juróom fukki at lañ cey dégg ne mooy ci benn soxna la tënkoon ba ni mu amee juróom fukki at moom yonent bi te xool leen kooku mu jël soxna nag xool leen ay jaar-jaar ndax lu bàyyi xel la ba xam soxna Xadija moom mu yonent bi jël te ba mu koy jël mu am juróom fukki at an toll ñeent fukki te yonent bi toll ci ñaar fukki at jaar na ci ñaari sëy ñaari sëy njëkk muy ñëw ci yonent am na ku ñu wax Abu Haala ibnu Malik moo ko njëkk a yor moo njëkk yor soxna Xadija ba am ak moom ñaari doom yu jigéen kenn ka tudd hind kenn ka tudd zeynab loola mooy ca ba mu njëkkee dem kër ca kër abu hala ibnu malik am naa moom ñaari doom muy hind ak zeynab yàlla dogal ànd boobee dakk mu demaat ci geneen kër ku ñuy wax atiq ibni abid ibn abdullahi al kooku itam am naa moom ñaari doom muy Abdullahi ak ku ñu wax jaariya ñaar yooyu jaar na ci ba am ñeent fukki at yonent bi aleyhi salaatu wasalaam doo koy jël mu bokk ci waa këram kon ku nekk xam na ne kooku koy jël ku mel noonu wala ci waxinu jamono waxambaane bu toll ci ñaar fukki at ak juróom jël soxna su toll ci ñeent fukki at ba noppi am ñaari sëy yum génn sëy bu nekk mu am ca ñaari doom muy ñeenti doom nga nangoo ànd ak moom kooku am nga leneen looy xool lu dul li nit ñiy xool nit jamono ji kooku mooy soxnaam su njëkk toppaat mooy sunu yaay sawda bint suma soxna soosu amoon na borom kër ba ba nelaw yonent bi dog koy bokk na ca sabab yañ gis ne moo tax mu jël ko mooy soxnaam su njëkk si muy sayida xadija bi muy nelaw bàyyi na ko ay tuut tànk yoo xamante ni ñeent ñu jigéen la kenn ka mooy Zeynab kenn ka mooy Roqaya kenn ka mooy Umu Kaltum kenn ka mooy Fatima muy ñeent ndaw di ay jigéen loolu kay ku nekk xam na ne war naa wuti kon moom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam kuy jeneen soxna soo xamante ni moo ñëw uuf njaboot bu sew boobu ba man leen a sàmm man leen a yar doonte ne kookee itam nag amoon na borom kër ba borom këram ba wuy ji boromam yonent bi aleyhi salaatu wasalaam doo koy jël kon ku dégg kooku itam da xam ne jëlu ko ngir jël ko waaye am na sabab su wér te sabab sa mooy ci wàllu social mu teg ca sa doomi Umar ibnul Xattaab ngir bëgg a dëgëral digganteem ci sababu zahir mu teg ca Saynabu bintu Xuzayma amoon na boroom kër moom itam waaye boroom këram ba mi ngi faatu ci xare Uhud ba yonente bi jël ko boole ko ci waa këram ci atam ñeenteel ma ci gàddaay ga moom sëy na Saynabu bintu Xuseyma moom mi ngi faatu ci jamono yi ci dund ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam la mu teg ca Ummu Salama Hindu bintu Abi Umayya ibnu Riab moom itam amoon na borom kër ba amoon ak borom kër boobee ay jaboot yonente bi doog koy jël kon ku nekk xam na ne juróomi ngi ñoo ñoo xamante ne yonente bi jël na leen te ku ci nekk wax nañ la sabab sa tax sañ xam te muy sab soxan man nañ koo joxañ ne la kii lii tax yonente bi jël ko mu am ci ñoo xamante ni itam nag yonente comme ab yonente la dafa war a woon xeetam bi fu ñu war a jaar rëddal leen sariya tax mu jël ñooñu bokk na ca soxna Aïsa bint Abi Bakrin Siddiq yonente bi dafa gént gis sunu borom di ko digal di ko won melokaanu sayida Aïsa digal ko mu jël ko mu jël ko ngir topp waxyu boobu jóge ci yàlla tabaraka wa taala mu teg ca Zeynabu bintu Jaxsin kooku as ngóor su nekkoon kër yonente bi bu baat bi daganee wax ñoo ngi ciy ñu koy wax Seyd yonente bi alei salatu wasalaam ba sunu borom araamala gut fab nit jàppe ko sa doom te du sa doom kooka da koo jëloon bañ ko daa wax sayyidu doomi muhammad mu amoon soxna soxna sa moo tuddoon Saynabu bintu Jaxsin seen diggante naqari ba mu fase ko sunu borom bëgg araamal ne képp koo xamante ni juraltu leen ko bu leen ko jàppee seen doom ju ngeen jur mu ne yonente bi wëlbatikul denc soxna Sayd soo suur ngir bëgg bëgg faa jële lu mel noonu loola nag lu doyoon waar la waaye sunu borom moo wëlbatiku ne ko boo ci dee hésité itam xamal ne man maa la ko may fa lamma qada zaydun minha wataran zawwajnaakaha ñoo la may yow muhammad ñoo la takkal saynabu bintu jaxsin moomu wax ja jeex kooku kon looloo tax mu am loo xamante ni ci wàllu politique la ñoo xamante ni yonent bi dafa bari woon ñu ko contre ci xeet yi ko wër ñoo xam ne ñenn ñi yëkkati nañ gànnaay xeex ak moom ba ñàkk koo mënal dara ñenn ñi téye seen ak noonu moo tax am na ci ñoo xamante ni jël na ci ñoom soxna ca soxna soosee moo tax seen diggante rattax ba ñenn ñi sax wëlbati ku nekk ay julli kooka bokk na ca Habiba ñu koy ram Ramla bintu Abi Sufyaan Abu Sufyaan ku amoon ay jaar-jaar la ak yonente beeg lislaam waaye nag bi yonent bi jëlee doomam jooju moo tax jafe-jafe yooyu foofu la jeexe ba mu mujj tuub dugg ci lislaam naka noonu sayida safiya xoyey ibnu axtab moom dañ ko jàppoon ca xare xaybal yonent bi alei salatu wasalaam mujj jël ko mbokk soxnaam naka noonu maymuna bintul xaaris itam mooy soxna sa newoon yonent bi yow laa bëgg dénk sama buum te loolu it sunu borom may ko yonente bi wa amraatan muminatan in wahabat nafsaha li nabi in araada nabiyu an yastankihaha xaalisatan laka min dunil muminin soxna soosu looloo tax yonente bi alei salaatu jël jël ko mu teg ca soxna suñu wax juwayriya bintul xaaris moom mi nga xam ne dafa bokkoon ci xuzaa ñii ne mi ngi bokkoon ci eh, bani nadir biim da dañoo jàppoon soxna soosu yonent bi aleyhi salaatu goreel ko ba noppi boole ko ci waa kër gi ba mu defee loolu saxaaba ya jàppoon aw nit te bokkoon ci xeetu soxna soosu xeetu ya bég ca loole ba ku nekk la nga jàppoon ci prisonniers de guerre nga jox leen liberté ngir teral soxna soosu jël ca xeet woowee naka noonu jëloon na ku ñuy wax Marie Qibtiya ku ñuy wax mu xaw xis ca Égypte moo ko joxoon moo jur sax Ibrahima jëloon nag ku ñu wax xaana rayxaana tam bokkoon ci waa xurays xuras xuraysi xurasiya kon boo gisee ñu lay tuddal lii ngir ñu xam ne kii bopp mbir mi muy yonente bi alayhi salaatu wasalaam amoon na ay soxna yu limu waaye nag ku ci nekk itam mosal nañ la ca sabab sañ xam ci zahir si nga xamante ni moo tax mu jël la ngir nga xam ne kon kuy wuti ay soxna yu bari itam na am sabab su biir suñ mën a joxem ci ne diit mooy tax nga koy wuti ñu seetlu itam yonente bi muy tàmbali bi am soxna yooyu itam bi muy jóge ci kenn jëm ci ay soxna am na juróom fukki at ak ñett kon teelu koo def waaw ñu seetlu kon nag koo xam ne ay soxnaam ma ngi ko tànne ci ay jeeg ma ngi ko tànne ci ñoo xam ne amoon nañu borom kër bañ faatu ba borom kër ya faatu ma ngi ko ci tànne ci tànne ci ñoo xamante nii ay jaboot lañ yu am ay doom te waa Quraysin dëppoo woon ci ne ko kaay ñu seet ki la gënal tànnal ku la gënal ci waa Quraysin ci jigéen ñi ñu may la ko te nga bàyyi lii ngay woote mu gàntal leen ba noppi nangoo jël ñee danga xam ne kii kat la tax mu jël soxna yooyu sabab su wér la koy teg waaye itam ngir bëgg lépp luy xew ci kër yonente bi mu am ñu ko mën a tuxal ndax kër dafa xat ñépp jotewuñ fa soxna yooyu nag buñ limoo ku nekk am loo fa jël nettali ko jullit yi nekk ci bitti njariñ la gën a tasaaroo moo tax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam xam gam xamoon loolu xam ne soxnaam yooyu jël nañ ci moom ay jikko ak sunna su wér moo taxoon mu joxañ kenn muy sayidatuna Aysa daal ne xuzu nisfa diinikum min hadihi l xumayra seen wàllu gi diine jël leen ko ci soxna su xees si ngir bëgg a wane nekkat jëlu leen rek waaye daf leen jël ngir mission ak yónnente gi ko yàlla jox bëgg ñooñu itam jël ci seen wàll tasaare ko rawatina ci seen mbokki jigéen yi sax rawatina itam ci seen mbokki góor ñi nga xamante ni am na luñ bëggoon a xam ci diggante dund bi yónnente bi doon dund ak waa këram yooyu te jotewuñ fa soxna yooyu ñoo leen ko mën a jot kon ci liñ jot a wax xam nañ ne lislaam andiwu fi soxna yu limu waaye daf ko fee fekk xam nañ itam ay yónente yu jiitu yónente yàlla muhammad amoon nañ ay soxna yu limu waaye xam nañ ne yónent euh, lislaam yi itam bi mu nangoo ay soxna yu limu itam bu ñu ko nangoo itam daf ko limité ba noppi itam wutal ko ay sart ñaari sart nag la ñaari sart ci koo xamante ni dafa am soxna te bëgg a ñaareel wala ñetteel walla ñeenteel ba nga ko amagu lislaam daf lay bëgg ci ñaari sart yi nga bàyyi ko xel su fekkee dem nga ba am ko ba noppi itam te bàyyiwoo ko bàyyiwoo ci woon xel itam nga wëlbatikuwaat bàyyi ci xel sart ba ca jëkk mooy li ñuy wax al mooy maandu maandu maandu ci diggante soxna ya nga ya nga bëgg a denc wala soxna ya nga denc ba pare maandu boobu nag laaya ji moo ko digle jam wax ne fa in xiftum alla taadilu fa waaxidatan ndaxte cëslaay li nga xamante ni mooy moo maye sañ-sañab jullit mu mën a am benn soxna ñaari soxna ñetti soxna dajalee doonoon ci wenn waxtu cëslaay la mooy wa in xiftum allaa tuqsitu fil yataama fankixu ma taaba lakum min annisaai masna wa sulaasa wa ruba mu ñëw ba fii nag ne su ngeen demee ba yaakaar ne bu ngeen duggee ci ay soxna yu limu du ngeen mën a maandu yem leen ci benn kon ab sàrt nga noonu bu rëy sàrt boo xam ne góor ak jullit bu bëggee a jàpp ci sañ-sañ boobu mooy bëgg am ay soxna ju limu na natt boppam ci loolu su seetee ne gis na ne kat ragal na ne su duggee ci ay soxna yu limu du mën a maandu amatul sañ-sañu jàpp ca loolee ko lislaam mayoon maandu boobu nag liñ ci jublu mooy nga yemale diggante soxna ya ci lan nga leen di jamale fi nafaqa muy ci ab dund ab dund nanga nga leen ci yemale wal kiswati ak koddaay wal mabiiti akum panaan dund ak koddaay akum panaan ak mbooleem yi nga xamante nii nit mën na caa yemale ay nit na nga leen ca yemale booy jox ab dund la ngay jox kii na nga ko jox kii la ngay jox soxna si na nga ko jox soxna saa la boo dee joxe ay koddaa itam la ngay jox kee na nga ko jox ko ca des boo joxe ak ay itam na ngay jox kii na nga ko jox ka ca des waaye nag loolu itam buñ ko waxee itam na fekk ngay yemale lu yemoo itam lu mel ne nit ku yore ñaari soxna soxna su nekk am dëkkuwaay bu mu ko dëkk kii dëkk ci quartier be kii dëkk ci quartier bee seen soxna si amagut ak njaboot seneen soxna si yor ak njaboot ku nekk xam na ne kon boo dee joxe ab dund bu doon cinquante mille francs la muy fukki junni kee nekk moom rek kee war nga ko caa tegal xëy na fukki junni ak juróom wala ñaar fukki junni ngir njaboot gam àndal foofa lañuy seet mooy na nga dundal ñëpp rek waaye lu tolloowu di su ko tollal loolu la ñuy wax foofu la ca toppaat itam mooy koddaay sunu borom moo bind mbindéefam yi tolloowuñ am na ñoo xamante ni am nañ taxawaay bu kawe doole nañ am ñu gàtt am ñu am yaram am ñu sew kon boo déggee ci ne maanaam koddaay dañ koy yemale ba tax nag ka njoole nga xamante nii wala mu am yaram nga xam ne fukki mètre ak ñaar moo koy doy nga bëgg ko yemale ku tuuti ka nga xam ne juróom benn mètre doy na ko jox kee ku nekk nga jox ko juróom benn mètre am nga koo lool kon lañ bëgg a wax foofu mooy ku nekk na nga ko wodd ko daay lu mat donte ne kee moo gën a joole wala kii gën a gàtt wala kii ëpp yaram wala kii gën a sew kon maanute buñ ko dee wax ci yooyu moo tax ñu koy wax na nga fexe ba def ci sa kemtulaay kàttan mu des ak maanute nag ci li ñuy wax almahabba mooy cofeel mbiram xol la mbiram xol la looloo taxoon wax nañ ne wax nañ ne looloo taxoon sunu borom tabaaraka wax ne mënu maandu ci diggante jigéen ñi doonte ne xër ngeen ci bëgg a maandu walan tastatiu an taadilu bayna annisaai walaw xarastu ñu ne kon ci jublu foofu gi wax ne moom yombut jafe na mooy maandu ci wàllu xol loolu nee na ginnaaw moomoo sa xol mënoo ca téye sa bopp waaye nag bu ko manifesté wu ba muy feeñ ci say cër wala sa xar waaye nag buñ duggee ci kër yi ci suñu jamono jii ci yenn ci borom kër yi am ay soxna yu limu dañ fa fekk léeg-léeg ay jëflante yoo xamante ni tegewut ci aw yoon ngir ñàkk maandu loolu nag lam jur mooy tax na yenn ci jigéen ñi yenn yenn ci jigéen yi ragal li ñuy wax am mbokk mu leen fa fekk si dañ koy tuddee kujje ngir lañ gis ca seen borom kër yu awut yoon yooyee ñu koy doxale ñàkk ci ñàkk maandu wala lañ dégg ci yenn borom kër yi yu ñàkk a maandu ci seen diggante ay ci ay soxna tax ñu ne kon ñun loolu kat bëgguñ ko te duñ ca dugg ñuy wax na ne borom kër bu maandu ci diggante ay soxnaam mbir la moo xam ne def na lu jaadu waaye loola la muy def lu ñàkk a jaadu lépp lépp lépp jotewut ak nag sañ-sañ boobu lislaam joxe woon góor gi góor ak jullit gi ne ko man ngaa am ñaar ñett ñeent xanaa kay dañoo tase koo xamante ni la ko lislaam digaloon ci maanu jëfewu ko ba tax rëq-rëq am foofee kon boog dañuy wax ne alxata u laysa fi tasrian mooy njuumte li ci li lislaam rëddoon wa innama alxatau fi tatbiqi waaye njuumte naa ngi ci nit kooku ni mu bëgg a dunde sañ-sañ ba ko lislaam joxoon ndax daa maanduwul te su maandu woon su fekkonte ni ñi am soxna yu limu yu nekk maandu nañ ci seen diggante soxna yooyu def la leen ko sunu borom digalee roy ci yonente bi ca nam daan maandoo danañ ci gis yiw woo xam ne dana tax sax jigéen toog ne borom këram mi ko yor moom rek te ma laa wutali keneen wala tey ngaa indi keneen mu jàppale ma ci liggéey bi ndax dootu am lu cay ragal ndax xam na ne borom kër bi maandu la kon loolu mooy sàrt bu njëkk bi te mooy maandu bu mu war a maandu ci diggante soxna yooyu ci dundal ga ak koddaay ga ak fanaan ñaareelu sàrt ba mooy na nekk koo xam ne àttan na ferey takk soxna wala ñu àttanal ko ko nit ki jullit bi bëgg a am ñaareelu soxna wala ñetteel wala ñeenteel ba ci jullit bi bëgg benn soxna sax na natt boppam ba xam attan na ferey takk soxna wala attan na ferey takk ay soxna wala attan na lañ ko ndax la am solo rek mooy na ko attan wala ñu attan la ko su fekkente ni àttanu ko nag jërëgut mu cay dugg aw waajtaayam dafa des ñu xam nag ne at loolu ñu wax ne. nit ki daf koo war a man bala mu cay dugg alquran a ko wax ci laaye fanweer ak ñett ca suuratu nuur nee na ñi ama ñi takkagut soxna ngir ñàkk am koom mu leen jàppale bañ mën a takk soxna ñàkk alal nañ am lu ñuy jomb ba kere ñuy am ba kere ñuy man wal yastaafifi alladina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadli bokk na ci anam yi wane nag nit ki mën a gut mooy su demee ba sax ak can ak can mënu koo am wala boog amut lum dépensé ci soxna su ko yoroon waaye ñu xam nag ne man-man boobu nag duñ ko natt ci ki ëpp alal ci dëkk bi ñu koy natt ci moom déedéet ku nekk sa tolluwaay lañ cey xool ndax loolu la suñu borom digli nee na ngeen dëkkal soxna yi ci seen kemtulaay kàttan na min haythu sakantum min wujudikum ci seen kemtulaay kàttan kon ku nekk classe ba nga toll ak daraja nga toll foofa la ñuy natte dëkkuwaay ba ngay jox say soxna wala dépense ba ngay jox say soxna walla koddaay ga nga leen di jox ndax suñu borom moo diglewaat ne ku am alal ju bari nay dépensé nay joxe alal joojee ca tolluwaay ba mu tollu dayoo jam toll waaye nee na ku ko mënul nag ngay joxe fam toll li yunfiq du saati min saati wa man qudira alayhi risquhu fal yunfiq mimma aataahu llah ndax kat laa yukallifu llaahu nafsan illa ma aataaha yàlla tegul benn bopp lu mu àttan kon ñaari sartango yooyu xamante ni nag léeg-léeg nit ñi danañ ci góor góorgóorlu waaye léeg-léeg duñ ca góor góorgóorlu ba tax nit ki di dugg ci lu mënut bu ko defee ay jeexital jëm fa nit ñi nag duñ mën a ràññee ki dugg ci lim mënut ak ka ca dugg ba noppi lañ ko digaloon def ko dañuy jóg rek daal ne takk ay soxna sikkama gi nii moo tax bi ñu ma joxee waxtaan wi te tuddee ko ne relation bi am diggante ay wujju ak jeexit yu bon yam yi am ma ne leen déedéet amul jeexit yu bon nañ koy dunde moo am jeexit yu bon moo tax ma soppi ko kon ñu xam ne ku ci dugg ci yooyu na nga jiital maandu na nga ko man itam soo ko mënut nga xam ne sa waajtaay mooy des nga dem waajubaat ba keroog nga koy man ñu jàll ci ñaareelu tomb bi ci luñ yaakaar ne luñ yaakaar ne moo tax lislaam joxe sañ-sañ ci góor ak jullit mu am ñaari soxna ba ñaar ba ñett bokk na ca yonente bi alei salaatu wasalaam ci boppam moo bëgg aw xeetam bari moo bëgg aw xeetam bari ndax moo taxoon mu ne tazawajul waludal waluda fa inni mukaasirun bikumul umama bu ngeen demee bay bëgg soxna di ko wuti na ngeen wuti soxna soo xamante ni yaakaar ngeen ci moom ak njaboot ndax dama bëgg ëllëg bis pénc bu ñuy ku nekk di junt bu nekk di wane aw xeetam ma gën ca ëppale aw xeet kon danañ gis na nit kat am na sañ-sañu nit ak jullit am na sañ-sañu mu ne naa takk ñaareelu soxna wala benn soxna sax wala ñetteel wala ñeenteel ngir ma mën a am njaboot bu bari ngir baril xeetu yonente bi alei salatu wasalaam te kat ka takk benn soxna man naa am ak njaboot waaye bu takkaatee beneen soxna kooko amaan njaboot bu takkaatee beneen soxna kooko amaan njaboot njaboot ga mën na faa gën a yokk luñ gën di yokk gën a dugg ci loo dimbale yonent bi ci bëgg-bëggam boobu te ku nekk xam ne nañ ay nit bu baree ci aw xeet ay nit xeet bu bari ay nit njariñ la waaye du si xeet bu bari ay nit njariñ la waaye du si tubaab yeeg yëfe yi nag ñoo ci bëgg a nax réew yi jullit yi di leen xamal ne seen soxna yi ngeen di takk ak seen jabar bu bari bari ngeen takk danañ dem ba dootu leen am lu ngeen dunde déedéet waaye baril ak njaboot dana tax xeet bi gën a ëpp doole dana tax nga am li ñuy tudde al aydil amila mooy boo bëggee ku la liggéeyal da nga ko am te loolu lu mu gën a bari ci am réew ci la wàllu économie bi di gën a jëm kanam waaye nag dafa des lenn loo xamante ni day ànd ak moom accompagner ko loola mooy lan njiit yi nag nañ mën a xam njiit yi jiite réew yi nañ mën a xam nu ñuy tërale économie réew mi nuñ koy organiser ba mën a jariñu ci xeeti mbelleen yi sunu borom def ci kaw suuf si ndax sunu borom mi nga xam ne ni moo joxe sañ-sañu góor mu am góor jullit mu am ñaari soxna ba ñett ba ñeent moo gàddu wërsëg ak jaam yi itam te moo def ci suuf si itam loo xamante ni mën nañ cee dunde ba noppi mu des kon nag suñ suñ gisee fenn sax nag ne ñooña bari nañ aw xeet ba noppi seeni koom-koom wàññi ba mun leen dundal nañ seeti nañ seeti gouvernement yi ko jiite ak seeni njiit ba xam ñoo defut seen wargar wala déet ndax loolu mën na ci am ak koom-koom muñ jaarale wut yoon itam loolu ba tey mën naa indi ay jafe-jafe waaye bari li ay nit du gàllankoor ci réew gën a jëm kanam misaal mi ci ciy joxe mooy réew réewam siin moo ëpp ay nit ci àdduna te deltuwut ginnaaw ci wàllu économie loolu nag kon dafay dàqonteeg ñu yaakaar ne nit ñu bari day dox diggante akum réew ba économie bu jëm kanam siim kenn ëpp ko ay nit waaye daanaka mooy ñaareelu réew mi ëpp wàllu économie gën gën a jëm kanam économie ci àdduna si kon jullit yi su fekkonte ni jaar nañ ci sañ-sañ bii leen lislaam jox seenu njaboot gën a yokk xeetu yonente yàlla Muhammad gën a bari seen économie day gën a jëm kanam kon jullit xëy na muy takk ay soxna yu limu ngir baril xeetu yonente yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ñaare ba seetlu nañ ne limab jigéen ñi ñoo ëpp limab góor ñi limab jigéen ñi ci àdduna wax nañ ne jamono ju nekk jigéen ñi ñooy gën a bari góor ñi joxe nañ ci misaal sax nee nañ américain yi biñ nattee ci seen nattukaay ngir xam ñaata nit lañ am wax nañ ne jigéen ñi ëppe nañ góor ña juróom-ñetti million biñ xaymaa ñaata nit lañ am ñoom américains yi ci seen natt yu mujj yi gis nañ ne jigéen ñi ñoo ëpp ñoo gën a bari seeni góor lu toll juróom-ñetti million fu mel ne réewum Angleterre bañ defee loolu ñoom itam natt seeni i góor ak seen jigéen gis nañ ne seen i jigéen ëpp seeni seen góor juróomi million a ah, waaye ñi des nag buñ nattoon nag luñ def loolu li ñuy tegtale mooy buñ faboon ci réew yu mel noonu buñ faboon genn góor gu nekk takk benn ab jigéen muy monsieur ak madame rek dana am juróom-ñetti million ci ay jigéen yuy taxawaalu ci biir Amérique yu amuti borom kër dana am juróomi millions itam yu taxawal ci Britannia muy Angleterre yoo xamante ni amuñ million te sax loola du demee noona ndaxte doon ne góor boo fa gis dana takk soxna mbooloo moom mu ci ay jigéen nag di taxawal te amuñ ay borom kër bul xam fu mu mujj kon nag bu la lislaam joxee sañ-sañ bi danga koy jàngat ci anam yëpp ngir mën a xam njariñ li kon limab jigéen ñi su fekkente ni jox nañ la ci misaal ne mooy ëpp limab góor ñi war nañuy bàyyi xel loolu lu bari baax a baax xam ne sañ-sañ bii lislaam joxe kat am na njëriñ te bu fekkente ni mbooloom jigéen ñooñu toog nañ te amuñ ay borom kër ñaari loraange dana ci juddoo am na ci loraange joo xamante ni ci jigéen ñi lay dellu am na ci loraange joo xamante ni ci wàllu société bi lay dellu loraange ji nga xam ne mooy dellu ci jigéen ñoo ñooñu waroon a am ay borom kër te amuñ ko mooy kenn ku ci nekk. waroon naa am boroom kër buy taxaw ci ay xam di ko dimbule wutal ko dëkkuwaay di ko dundal di dox digganteem ak mooy yàlla am na ko ak njabootam ba du mooy yàlla te amu ko loolu loraange mënu ko wees kaw loraange la koo xamante ni waroon ngaa am manoon ngaa am boroom kër bu lay taxaw di la dundal di la wodd ba noppi dox sa digganteeg lu araam ba noppi nga am ak njaboot te amoo ko loraange la loolu mooy loraange ji dal jigéen ñoo ñoo xam ne dañuy toog te amuñ boroom kër loraange ji dellu ci mbooloo mi nag mooy jigéen ñooñu nañ jël juróom-ñetti millions yu américain yooyu ak juróom-ñetti mil eh, juróomi millions yu Angleterre yooyu ñooñu la wax ne ay jigéen lañ yoo xamante ni bul xam fa ñuy mujj ëllëg mën nañoo sóobu yoon woo xamante ni du noona ba jaar foo xam ne du noona ba réer andi fi ay bon bon yoo xamante ni wopp yu bare bari ci yooyu la jóge kon ñu xam ne kon ginnaaw jamono ju nekk jigéen ñi ëpp góor ñi ku buñ jàppoon ci sañ-sañ boobu lislaam joxe te mooy takk ñaar ak ñett ak ñeent loolu dana nekk saafara su rëy ñetteelu biir ma nga xamante ni mooy moom lañ yaakaar ne moo tax lislaam maye sañ-sañu ñaari soxna ba ñett ba ñeent mooy góor ñoo ñu nga wax ñu wax ne ñooy gën a néew ci àdduna si kat ñooñu itam ñoo ëpp lu ñuy faatu kat ñoo ëpp lu leen ak faatu di gaalal ci jigéen ñi moo tax na sax fa bariwaa na ngay gis jigéen ñi gudd fan lool ci ay góor ndax nee nañ li ëpp waxuma lépp li ëpp ci góor ñi ñooy nekk ay soldaar jigéen ñi léegi ñu ngi leen def ay soldaar waaye bariwul ba léegi góor a ci ëpp ci àdduna sépp nag la li ëpp ci góor ñi ñooy nekk ay soldaar ñooy méngoo itam liggéey yu metti yi moo tax faatu ci seen wet moo gën a tasaaroo ci wetu jigéen ñi loolu na kaay ñu joxe ci misaal buñ jëlee réew mu mel ne buus na ak xërsëg ay réew la ñu nekk ci biir Europe waaye ay jullit dañ faa dëkke woon la ko buus na ak xërsëg réew moomu ab xeex dafa dox boo xamante ni diire na atam 1992 ba 1996 xeex boobee dox na lu tollook ñeenti at xool leen nañ xool ba xeex ba dakkee lan la jural góor ñi ak jigéen ñi mooy dem nañ ba xeex ba dakkee gis nañ ne genn góor gu ne ñaar fukki jigéen ak juróom-ñaar ñoo koy wër mooy jigéen ñi ëppee nañ góor ñi lu tollook ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar te ay julli lañ nga xam ne jafe-jafe yam leen andil moo di dina maanaam jigéen ña mënatuñoo gis jullit seen moroomam jullit mu leen takk bay ñàkk pexe am moroomam yéefar di leen takk te loolu dañ koy tere ci lislaam kon nag ñi nga xamante ne nii ay réew jullit lañ te yàlla nattoogu leen lu mel noonu ba noppi ñu bëgg a yem ci mu ak madame duñ ca yem waaye di gàllankoor wala di reetaan wala di saboote góor ak jullit gu jàpp ci sañ-sañ boobu nga xam ne lislaam daf ko wonay te xamuñ ne seen mbokki jullit ak noonu genn góor ñaar fukki ak juróom-ñaar wër ko mooy ëppe ko loolu jafe-jafe yooyu ñooñu dund nga dikkit fu mel ne réewu Irak ak Iran jamonoy ayatullahi alxumayni bi mu wootee sawra islam yëpp te Saddam Hussein ma jiit attaque ba ab xeex juróom-ñetti at juróom-ñetteel bi xeex ba daqee ginnaaw juróom-ñetteel wax nañ ne la dee ca góor ña ci diggante ñaari réew yooyu mooy mujj na jural na leen genn góoru iranien bu nekk genn góoru irakien bu nekk juróomi jigéen a koy wër mooy juróomi jigéen ak jigéen ñi ak peneñ góor ña ci ñaari réew yooyu juróomi yoon réew yooyu nag bu fekkonte ni jàppuñ ci sañ-sañ boobu lislaam li lislaam jox ci ñu mën a takk ñaar ñett ñeent te defuñ ko sax nag te defuñ ko ndax foofu itam bari na ci ñoo xam ne ñoo tubaab yee yem mooy benn góor benn soxna nga xam ne kon jafe-jafe gi foofu te lii mënuñ ko fee jële nag mooy néew ak góor ñi mënuñ ko fee jële ndaxte maanaam dañ laa jox misaal ci américain yeeg britannia jox la misaal ci Irak Irak waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo njëkkoon a wax ne am na jëmmi jamono joo xam ne nii bokk na ci màndargay ne bis pénc ci jege na góor ñi néew góor ñi néew inna min asraati saati an yurfaa al ilmu wa yusraba al xamru wa yazhabu rijaalu wa tabqa annisaau wa yafsu zina wa yura arrajula alwaxida yatbaahu arbauna imraa yaluzna bihi min qillatin wa yakunu li xamsina imraatin qayyimun waaxidu yonente bi nee na bokk na ci màndarga ne bis pénc ngi bëgg a ñëw dañuy dem ba xam-xam jóge fii dañuy dem ba naan sàngara tasaaroo dañuy dem ba góor ñi dem ay jigéen des fi njaaroo tasaaroo nga xam ne góor ñi dinañ néew ba nga xamante da ngay gis génn góor ñeent fukki jigéen topp ko ku nekk bëgg a wéeru ci moom nga xam da gis juróom fukki jigéen génn góor moo leen di taxaw yonente bi nee na lii bokk na ci màndargay ne bis ci ngi jege kon nag jullit ñi lu ñu war a def lu dul ne maanaam war nañuy bàyyi xel li leen seen yonente waxoon te dellusiwaat ci li ñu leen rëddaloon te mooy ah sañ-sañ boobu leen joxoon ñeenteelu bi moom am na ci góor ñi ñoo xamante ni benn ab soxna doyul leen ngir kàttan nga leen yàlla jox du ñëpp waaye am na góor ñoo xamante ni benn soxna dayu ngir kàttan nga leen yàlla ne ku mel ne kooku nag suñ baaree woon bunt bi ci kanam bi ne ko benn soxna ngay yem te benn doyu ko bu dul ku yàlla dimbale mën naa def lu dul noona mooy yàlla te la ko waral mooy li ko sunu borom ubbiloon moom lañ tëj ci kanamam nga teg ci kat jigéen jooju mu yor moom kenn kooku genn góor googu genn soxnaam soosu jigéen jooju weer wu nekk dana gis baax te su amee doom gën jaaneew dana tool weer ak fukki fan yoo xamante ni dereti wasin ja du dakk te jamono ji waxtu woowee du ca joteeg borom këram kon nag lii su fekkoonte lislaam joxewut sañ-sañ bii fu ko mel ne kooku di jëm nañ ko bàyyi xel mbokki jullit yi juróomeel ba mooy léeg-léeg góor gi am soxna te soxna sa jaasir mooy munta am doom walla mu wopp munta am doom wala mu wopp wala boog aajo ya borom këram soxna ci moom du ko man ñu ne kon nag ginnaaw nag góor gi góor ak jullit gi ak soxnaam si te soxnaam sii dafa jaasir munta am doom docteur yi seet nañ ko munta am doom wala dafa wopp bokk na ci maandu soxna su ci boppam sax mu may borom këram boobee mu wuti beneen soxna bu ñaareel ndax loolu mën na koo aar ba mu des nekk soxna ba dalal ñuy mbir may dem ba meroo di ci am ba fasa di ci am sax foofu nag ñu prof ndoll si wax ci ne am doom ak ñàkk doom am doom doonu ne ay pexe koy maye waaye ñàkk doom doonu ne ñàkk ay pexe koy xañe am doom ci yàlla la ñàkk doom muy ñàkk njabootam ci yàlla la sunu borom moo ko wax ca mujjantalu suuratu suuraa nee na yàlla moomoom moo meeli asamaan yi ak suuf teg ca ne mooy bind lu ko neex yàlla mu ne maay fekk nit ma may ko ay doom yu jigéen rek rek muyuma ko doom yu góor yahabu liman yasaau inaasa fekk nit ma may ko doom yu jigéen rek te duma ko may doom yu góor loolu sama sañ-sañ la man yàlla te danaa koy def wala ma fekk nit may ko doom yu góor rek te duma ko may doom yu jigéen wa yahabu li man yasaau dukur wala ma fekk kenn may ko ñaar yépp njaboot bu góor ak bu jigéen aw yuzawijuhum dukuraan wa inaasa waaye nag maay fekk nit xañ ko yépp wa yajcalu man yasaau aqima kon njaboot xéewal gu sunu boroom di joxe ay pexe mayewu ko waaye ñàkk pexe itam xajawu ko waaye nag su yàlla nattoo jaam bi jigéen ji ba mel noonu itam boroom këram bu jàppee ci sañ-sañ boobu ko lislaam mayoon war naa mën a am ñaareel soxna ba ñett ba ñeent juróomeelu mbir ma ba tey ñoo ngi ci yi nga xamante ni yaakaar nañ ne moo tax lislaam mayee soxna yu limu juróom-benneel bu mooy léeg-léeg góor gi gis jigéen joo xamante ni ci ay mbokkam la te jigéen joojee yàlla mayu ko boroom kër walla jigéen joojee bokk ci ay mbokkam yàlla mayoon na ko boroom kër ba noppi mu faat te moom góor gi mu xam ne jigéen jii di mbokkam nga xam ne amul boroom kër wala amoon na boroom kër mu faatu moom moo fi sës ci ku ko mën a jàppale mu dimbulee ko ci jël ko boole ko ci waa këram mu bokk ci soxna ya kooka dimbali na ko ci ñaari wet fexe na ba mu mën a am fa te muy am luy jombale ba du def ak mooy yàlla dox na diggante moom ba noppi itam nag am na fu mu ko féete yoreel ko dundam ak koddaayam loola féete na ko te léeg-léeg itam ñu gis way jur wu fab ak njabootam gu jigéen yépp ñëw seet kilifa gu ko doy ne ko ne ko jébbal naa la sama njaboot gi yépp bu jigéen ji koo ci bëgg a boole ci sa waa kër nga ko cee boole koo bëgg a keneen mën nga koo def génn naa ci lu mel noonu dana tax dana tax ay soxna yu li mu di am mu am nag loo xamante ni ci la mu jël ci wala benn ci des mooy léeg-léeg itam nit di wut ay soxna yu bari te la ko ceew poussé mooy bëgg na ay relation ak yenn ci mbooloo yi dëgër wala lenn ci xeet yi dëgër wala diw sàngam relation ak moom gën a dëgër jox nañ ci misaal ci yónente beeg Abu Bakrin wala yónente beeg Omar ibn Khattab jox nañ ci misaal ci yónente beeg xeet yam doon te bëgg seenu ay bu jógee ci ñoom jëm si coom wàññeeku wala jeex tax mu takk soxna ci ñoom te ba ko defee itam gis nañu bi kon léeg-léeg ñu gis lu mel noonu ak ngorente guy dox diggante nit ak ay nit ngir bëgg relation boobu dox seen diggante gën a rafet gën a jëm kanam waaye itam nag am na loo xamante ni taamu lay li ñuy tuddee taamu taamu mooy ji góor ñoo xam ne ni mën nañoo takk soxna waaye dañoo lànk wala boog lànkuñ waaye dañoo taamu façon jigéen bu ñuy wër ci àdduna te gisuñ loolu gàllankoor la wala boog jigéen ñoo xamante ni dañuy taam ndax dañuy wut dañuy wër façon borom kër bu ñuy wut di ko wër ci àdduna te gisuñ ko loo ci gisul nag sikk si ci lislaam ma la doon wutloo nit bu baax muy azawjatu saalih wala azawju saalih lislaam ma la doon wutloo yow bu dee jigéen lislaam ja la doon wutloo borom kër bu baax ndax jigéen am na sañ-sañu wuti raasi borom kër bu baax ni góor góor amee sañ-sañu wuti soxna su baax waaye nag léeg-léeg dañ ciy am njuumte mooy sunu borom daf laa ubbiloon lu yaatu nga xatal ko ci sa bopp bu dee góor dana la woon nanga boo dee wuti soxna na nga wuti soxna su yiw waaye foo koy wuti nag waxu la ko yaa ko xatal nag foo koy wute waxu la ko kon ginnaaw waxu la ko mooy am nga sañ-sañu wëri ko ci àdduna ci àdduna laa xam nga li ma wax yàqu ko ci continent Afrique bokk ba tey yàqu na wala nga wëri ko ci Afrique sowu jant ba tey yàqu na wala nga ne dama koy wëri loolu lépp lànk naa ci biir Sénégal laa koy wëri ba tey yàqu na nga ne du ma ko wëri ci Sénégal waaye ci dëkk laa koy wëri dëkk sàngam boobu quartier sàngam quartier sàngam boobu kat du ma ko biir kas waaye kër diw sàngam kër diw sàngam néeg yaay diw sàngam laa ko wute léegi yaa ko xatal yaa ko xatal la lislaam ubbi woon mu yaatu yaa ko xatal kon sikk si ci yow la waaye du ci lislaam loolu li fi bëgg a wax mooy soxna su yiw ba tey mi ngi am waaye gëstu ba dañ koo yaataloon nga xatal ko borom bu yiw ba tey mi ngi am gëstu ba bañ koy seete yow jigéen ji jigéen ji jullit ji lislaam daf koo yaataloon yaa ko xatal kon sikk ci yow la yow moomu yow góor gi ak jigéen ji waaye sikk si ci lislaam ñu jàll ci jeexeet ji nga xamante ni ay soxna yu limu mën na ko am nag am na ñu ne luñ ci tudd nag dañ tudd tontu la am na ñu ne diw sàngam ngi ni ñu ne ko ndax da nga wuti am ñaareel wala ñetteel wala ñeent mu ne xalaatuma ko du ma ñu ne ko lu tax mu ne li may gis ci diggante ak kujjante ci génn kër ak loraanga yi cay juddoo ak manante ba cay am ak noonoo ngay am ca diggante ñey wujjante nga xam ne loraanga jooju da di jëll ba yegg ca borom kër ga da leen di jëll ba yegg ca njaboot ga loolu duma ci dugg am na ñuy wax loolu dëgg la loolu day am waaye nañ seet fu jóge tontul kooku walaay bëgg moo ne loolu ngay ragal ba tax nga ne duma takk ñaareel wala ñetteel wala ñeenteel ngir ne dama bañ kujjante di am ci sama biir kër te kujjante bu amee loraange mën na cee jugante joo ne mën naa dal ci sama kaw dal ci sama njaboot ñu ne la lañ lay tontu mooy loraange jooju ngay wax nga yaakaar ne maanaam mbooloom soxna ya nga dajale ñoo koy indi loraange jooju mën na laa fekk ci yow góor benn soxna ñaata yoon lañ dégg ñu naan kaay leen àtte ji diwëb soxnaam sax sax diwëb soxnaam sax seen soxna la kon buñ ko jiiñ ne li ma soxna yaa ko indi waaye nañ ko jiiñ nit nit lañ ko jiiñ nit lañ ko jiiñ te itam lislaam forcé la ci nga fob sa soxna yépp dëkkal leen ci genn kër déedéet soo ko mënee ku nekk ber ko def ko soo ko mënul nga dajal leen te maandu seen diggante kon ki ne maam duma limal ay soxna ngir bañ noonoo boobu dañ naan ko kat la ngay bañ ngir yaakaar ne ak noonoo soxna yu li boo koy indi mën na laa fekk ci sa benn soxna bi nga yor kon problème bi nekk foofu fan la nekk mooy maandu ak jub maandu ak jub moo tax ku baax ku ñu wax Moustapha Sabri waxoon ne nit ñi nañuy teqale diggante principe bi lislaam joxe ci maye sañ-sañu li may ay soxna ñu bari ak fekk ay soxna yu bari yoo xamante ni yàlla daf leen a nattoo ay boroom kër yu dëng ndax day am nag nee na bu ñu leen di jaawale ñaari mbir lañu bokk principe bi la lislaam joxoon ne may na am naa la sañ-sañ jox naa la sañ-sañ su la neexee wut ñaar ñett ñeent mbir la mu beru waaye nag da fekk itam ay soxna yoo xamante ni yàlla da na a nattoo boroom kër yu dëng yoo xam ne maanuwuñ ci seen diggante maanuwuñ ci seen diggante ñoo xamante ni ay tooñkat dañ doon ñoo xamante ni seenu jëflante rafet ñoo xamante ni duñu sàmmoonte la leen àq yàlla jëm ja yàlla digle woon ñoo xamante ni dénkaane yi yonente bi doon dénkaane ci jigéen yi faale wuñ ko mu ne ñooñee nañ xam ne musiba ma leen dal ñoom jigéen ñooñee nga xam dañoo nekk ci ron borom kër bu jubut musiba moo amee juddoo ca limu ga ma nga juddoo ca borom kër ba nañ waxtaanaat ak kër nañ digalaat borom kër boobee mu jàng la ko yonente bi digaloon ci aw jigéenam mu jàng la ko diinam digaloon ci aw jigéenam ca maanu ba bu ca jaaraatee rek jàmm na ñëw moo tax mu ne loraange duñ man di wax ci soxna sa njëkk ca kër ga ci ne loraange jooju dana ko dal su fekkee wutal nañ ko ku ko fa fekk si loraange juñ ko mën a tuddal rek nee na njariñ a nga ca wetam joo xamante ni day delluwaat ci moroomi jigéen ya amutoon borom kër te mujjul am borom kër mbokk yi nañ déglu loolu bu baax su fekkente ni nit ñenn yi dañ naan kenn ki danaan du ma wutiwaat ab soxna ngir ne sama soxna sii dama koo fonk dama ko fonk dama koy teg ca kaw lañ la wax ne intérêt personnel moom ngay sàmm waaye boo wuti woon ñaareel ñetteel ñeenteel jëriñ nga ñetti jigéen yoo xamante ni naroon nañoo toog te duñ am borom kër duñ am ku leen jaboote duñ am ku leen dundal ñu ne nag màndaxeel diggante ñaari intérêt yooyu intérêt kenn ak intérêt mbooloo saa soo ko màndaxee rek da nga xam ne kon di lislaam wax ne sañ-sañ boobu kon lu mat a bàyyi xel la loolu mooy kon critique bu njëkk bi nga xam ne ñenn ñi ne wut ay soxna yu bari musiba la mooy loolu ñu wax ne wujjante bi am ci biir kër gi ñu dem siwaat kon wax ne wujjante boobu ak loraange ju ngay yaakaar ci diggante soxna yu yi mën naa am ci benn soxna kon problème bi du foofu waaye mu ngi ci éducation ñu teg ca am ñu ne diw sàngam ñu ne ko lu tax doo wuti ñaareel wala ñetteel wala ñeenteel mu ne seen soxna laay yor ndax dama bëgg mu jural ma samay doom rek moom rek ndax bëgguma am yeneen doom ci jeneen soxna ndax su ma ko amee sama njaboot dootuñ juboo sama njaboot dootuñ juboo man naa am ku wax loolu laa wax damay yom yem ci sama benn soxna bi mu jëral ma samay doom yépp ndax man naa am su ma wutaatee ñaareel wala ñetteel bu ma ñooña amee amee ci man ay doom ñuy nekk ay doomi doomi baay mën nañoo bañ a juboo ëllëg te loolu laay bañ kooku lañ koy tontu mooy noonoo googu ngay yaakaar ci diggante doomi baay yooyu yi bokkut yi bokk baay te bokk bokkuñuy ndey noonoo geege su amee lan moo ko fa indi nga war a set la ko fa indi mooy yar bu manki yar bu manki waaye yow baay su fekkonte ne def nga sawaru gar jaaraleen fa la lislaam jaarloo woon jaaraloon mooy nga jàngal leen seen diine tàggat leen ci jikko yu baax xamal leen nag surtout xamal leen ne doomi bàyyi ca dëgg dëgg dëgg mooy bokk doomi bàyyi ca dëgg dëgg mooy bokk ndax am na foo xamante ngi sax doomi bàyyi moom lañuy jiital ci doomi ndey rek ci miraas sax rawat doomi bàyyi buñ ko joxoon cër ba ko lislaam jox kon ku mel nii du wax lu mel nii ba yaakaar ne ak dëngoo day am ci dégg njaboot kon la ko war mooy yar ak njabootam teg leen ci aw yoon li ñuy mujjantal nag ci ay tomb ak ndénkaane lay doon mooy xam nañ ne léegi lislaam ka ndekete bi muy joxe sañ-sañu ay soxna yu limu defu ko ngir ak neen daf koo def ngir xikma ngir ay jubluwaay yu wér ak i yu wér defu ko tegu ko fi ngir ak yomb yombal boo xamante ni bu jullit bi ñàkkee pexe la cay dem waaye daf ko fee teg mu nekk cosaan lu wér cim waaye ka cay dugg rek na bàyyi xel sart yooyu ñu gis ne que tam mbiram ay soxna yu limu dont ne gis nañ ñu koy jëfandikoo ci anam gudul noonu téewut lu am njariñ la ndax kat am na ci nit ñoo xam ne ñu wutee am ñaareel dañ leen wax lu tax ngeen wutam ñaareel ñu ne dañoo bëgg a yar ki fi njëkkoon du jubluwaay bu rafet mbokk jullit yi du jubluwaay bu rafet loolu tontu loolu jubluwaay bu rafet wala boog lu tax nga wëtt beneen soxna tontoom nekkul lu dul ngir ne man bëgguma nekk góor benn soxna loolu itam du tontu loolu itam du tontu wala boog lu tax nga wuti beneen soxna ngir ne kat dama kee dafa am post bu rëy di fayoo ko lu rëy te ma bëgg bu dikkee di may dimbale baax na ci côté waaye rafetu ciy jikko baax na ci côté waaye rafetu ciy jikko kon nag mbokk jullit muy góor muy jigéen koo xamante ni jullit nga te naa la am ay soxna yu limu la nga war a jiital mooy yéene ju rafet yéene dox sa diggante sa ak sa bopp ba doo ba jomba def lu ñaaw dox sa diggante doxale sa digganteeg say soxna ak def lu ñaaw yéene itam bari xeetu yonente yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam lu mel nii na nekk yéene joo jiital ñuy wax jigéen ji nga xamante itam yàlla daa def ñu wutal ko meneen mbokk ñoo ngi koy xamal ne loolu taxut àdduna tukki taxut àddina tukki la la war daal mooy nga muñ la la war daal mooy itam nga muñ te xam ne sa borom kër boobu wuti beneen soxna kat defut luy tukkil àddina waaye sañ-sañ bu ko lislaam joxoon la sañ-sañ bu ko lislaam joxoon yow soxna soosu itam ñu lay dénk nga xoolaat yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ak soxnaam yooyu ak muñ ngañ doon muñ nga roy ca kenn fa nekkoon ñaara fa nekkoon di limu ba yegg foofu te ñañ fa teg si mus dégg ko fa jàmm kon loolu jërub ngay tukkal àdduna xool na xool ci ku mel ne sayida sawda mi nekkoon ci waa kër bi yeggoon na ci may ak ayam sayidatuna aïsa ngir bëgg fa sax ak bëgg a des nekk soxna si yonente bi ci àdduna ak àllaaxira jubluwaay bu kawee ngi doon bokk bu soxna si yow mi wutal meneen bokk na nga xante woo say warugar bu ca wàññi dara na ngay def sa warugar te bul séntu ñu fay la say warugar loolu la sëñ Tuubaa digle woon bu yàgg ci nag jox day xaj na nga jooxe say àq te bul séntu ci nit ñi ñu lay jox see àq yi ñu la joxe nee na dañ koy dénk mooy nay def ay warugaram doo jëkk muy laaj ay àqam léeg-léeg nag lenn ci jigéen ñi ñu wutal leen mbokk ñu wëlbatiku di laaj ne lu ma manqué man bañ may wutal mbokk te li ma jublu ci mbokk mooy wujj ana lu ma manqué ana fan laa gàttañloo ci sama borom kër bi ba mu may def lii ku mel kooku lañ bëgg mu laaj boppam laaj yi jigéen jooju na laaj boppam laaj yi te tontu ci tontu yu wér loo xam ne janax boppam laaj bu njëkk ba mooy ndax moos yow jigéen jooju di wax ne gisoo foo gàttañ ak gisoo lu manque ci yow bañ day wutal mbokk ndax sa boroom kër ba nga ko séqaloon daa nga ko toppatoo di ko nemmeeku fa bëtam daan dal nga koy xool ba xam lu bon a nga fa wala lu ñaaw wala daan ko def wala daawoo ko def tontul ci loolu muy benn ndax daa nga nemmeeku xeet gam daa nga ko daan xeeñ moom sa borom kër ci biir kër gi ndax xam nga ba xam xet gu neex la woon wala xet gu naqari la woon tontul ci laaj boobu tabu ci nax sa bopp ndax daa nga seetlu ba xam sa boroom kër daana xiif walla xiifu wala daana bëgg nelaw nga yàqal koy nelawam yii yow miy wax ne gisuma fu ma wàññi wala fu ma loo bañ may wutul am mbokk tontul sa bopp ci laaj yooyu tontul wir tabañ sa bopp ndax xam nañ ne kat soxna su demee ba nekk mag njaboot juddu bari rawatina su njaboot ga bare lu ci baree bari day yittewoo xale ya fàtte boroom kër ba te lañ ko digaloon kat di bañ koy muun mooy yii na leen àndandoo jiitaloon leen bu ca benn mànk bum négligé boppam moom soxna si bu bum négligé boroom këram bum négligé ay jam ay ay njabootam na jox ku nekk àqam kon nag kooku ak laayante biir la xeeti laaj la waaye laayante biir ngir jigéen ji ji nga xam ne dañ ko wutal mbokk muy bàyyi xel loolu góor gu nekk itam ak soxna su nekk itam seen soxna su nekk wala ay soxna yu nekk war nañoo xam war nañoo gëm ne dafa bokk ci ponki lislaam ponki gëm yàlla li ñuy tudde al imaanu bil qadaai wal qadar mooy gëm ab dogal nag gëm ab dogal gëm ab dogal mooy nga gëm ne lu xew yàlla yàlla xam na ko moo bëgg mu xew su ko neexutoon du xew mooy ku la fekk ci kër gi nekkaat soxna yàllaa ko bindoon ca azal muntoon a ñàkk boo ko gëmul nag teggi nga ponkab lislaam ponkab gëm yàlla bu mag te mooy gëm dogal ba loolu la sëriñ Tuubaa di wax radiyallaahu anhu ne jullit balaa ak njullitam ma dëgg dëgg day gëm dogalam yàlla fu dogal ba jeng wuti fa mu wuti fa te du ca am njàqare du ca am naqaru xol fa hay suma yamil qadaau rabbi fa min lahu duna tilaabil qalb ca masaalikul jinaan kon soxna soosu su xamee ne dëgg la moo njëkk ci kër gi wala moo ñaareel bi ñetteel fepp wala mooy ñetteel bi ñeenteel fekk ko fi itam na xam ne loola yàlla dogaloon ca ësal ci ne ñooñu mënuñ ko faa ñàkk fekk si bu boobaa dana woyof ci bu boobaa dana ñoom ndaxte benn am laajab xel rek lay laaj daanaka góor bu ne wala jigéen bu ne góor gu nekk ci biirub sëy wala jigéen bu nekk biir sëy boo ko laajoon ne ko sa soxna diw sàngam mii bu ñu arrièreoon fukki at ak juróom yee jiitu ngeen di ànd ndax ku la woon pëgg pëkkal ne la kii dana mas a nekk sa soxna ndax da nga ko gëm lu bari ci nit ñi lañ day tontu mooy déedéet sa soxna si wala sa soxna yii sax buñ la areeroon sa dund ñaar fukki at ak juróom ci ginnaaw ne la diw sàngam yi de dana mas a nekk sa soxna diw sàngam yi dana mas a nekk sa soxna diw sàngam dana sax yu ci bari bari ca tontu yeen buñ la areeroon ba ca boo laaj la da nga naan ah yaakaar waa lu leen fa indi rek dogalab yàlla bi dogalab yàlla bi lii nag laa bëgg jigéen ju nekk xam ko moo xam nga ko fa njëkk moo xam ngay kañaare wala ñetteel wala ñeenteel gëm dogalab yàlla mënut a ñàkk ci julli góor gi ak senn soxna si walla soxna ya ñoom ñëpp itam war nañuy fàttaliku ne anna al arzaqa bi yadillah wërsëg ci loxol yàlla la nekk ndax bari na ci jigéen ñoo xamante ni li tax ñu bañ mbokk mu leen fa fekkaat te li ma jublu ci mbokk mooy wujj li tax ñu bañ ko mooy dañoo yaakaar ne bu ñu doon am téeméer bu dikkee ñu fukk la am waaw borom doon jox téeméer bu ah juróom fukk laay am rek moo tax loolu musiba la waaw kooku kon kooku xanaa gëmul ne bu dee jullit xanaa gëmul ne wërsëg ci loxol yàlla la te kenn du fi jóge ci àdduna wuy ji boroomam lu na la nga amoon ci wërsëg da nga ko yóbbu te kenn du la ko yóbbu wa ma min fi l ard illa ala llaahi rizquha wa yaalam nag lu mat di dellu siwaat gëm ab dogal ak gëm ne wërsëg ci loxol yàlla la lu mat di dellu war nañu itam gëm-gëm gu dëggu muy góor gi ak seen soxnaam si ak soxnaam si yu bari yooyu war nañoo gëm gëm bu dëgg ne njariñ ak loraange ci yàlla lay jóge njariñ ak loraange ci loxol yàlla la nekk Sëriñ Tuubaa ne ne an nafu wa dur min arrahmani laysa min albidaani wa suudaani loraange ak njariñ ci loxol yàlla la nekk mooy ka fekk si mënu laa lu dul na yàllaa ca ànd mënu laa jariñ lu dul na yàllaa ca ànd moo tax nag ñuy bëgg julli sax lu muy sàkk mu sàkk ko ci ak ngor te xam ne yàlla joxe kon wujj du xañ wërsëg wax ja jeex may nañ ko nag mu fiir fiir waaye fiir daa am fiir gu am njariñ ak fiir bu amul njëriñ fiir ga am njëriñ nag mooy ñu ëppal solo moom la ñu fiir ga am mooy fiir gii jeñ soxna si ci mu def luy gërëm loo yàlla ak luy gërëm loo këram ak lu tax muy dëppoog boroom këram ak luy tax mu sori luy merloo boroom këram ak mu tax luy muy sori luy jàqloo boroom këram ngir bëgg am cofeel ak borom këram ak yéen bëggeelam ak yërmandeem googu fiir moo am njariñ googu fiir moo am njariñ fiir gu lay jañ ngir ngir ngay def luy gërëm loo yàlla ak luy gërëm loo sa borom kër te yàlla googu fiir moo am njariñ googu jigéen bi nekk war na cay bàyyi xel waaye war nay xam ne kenn moomul kenn ndax am na genn fiiraa ngi danaa la muy firi dafay mel ne yaa moom diw sàngam waaye kenn moomul kenn rek boroom kër moomul soxnaam soxna moomul boroom kër kenn moomul kenn kenn fi indiwut kenn itam bi te góor geeg boroom kër geeg soxna si ñëw ñëpp benn boroom lañ am te leen digal la leen digal mooy wa maa jinna wal insa illa liya'budun ñu jàmm kon da ngeen a daje ci àdduna da ngeen a daje ci àdduna boroom kër ak soxna laax de dañoo daje ci àdduna boroom kër ak i soxnaam itam dañoo daje ci àdduna te bis dana ñëw ñu teqali ko itam ab daje nag rafetal ko moo ca war ci tënku ci ndigal ak moytandiku rek tañ xam nag ne boroom kër dii su ko jaamu waaye dee si jaamoo yàlla ci moom mbokk yi daf ci am ñoo xam dañ naan borom kër dee si koy jaamu déedéet yàlla la ñuy jaamu waaye dee fi jaamoo yàlla ci borom kër mooy nga koy defal lam bëgg tam dëppoog la yàlla bëgg ak yonente bi alei sa wasalaam nga di ko def tam ngir jëm yàlla bu ko def ngir bañ kenn fekk si la ko ndax léeg-léeg nit ki sonn ci defal borom këram te def ko ngir jëm yàlla ngir bañ kenn ko fekk si te teewut kew ko mën na faa fekk si te boobaa mu perte ñaar yoon mooy def na dara te def ko ngir jëm yàlla yàlla du ko ca fay dara te lam doon bañ bañ mu nit ki yegg si kon kuy def na def ngir jëm yàlla te maytu li ko fàtte wala fàtte fàttelu ne muy góor gi wala jigéen ji góor gi ak senn soxnaam wala góor gi ak soxnaam kenn ci ñoom ñaar bu muy fàtte wala muy fàtte fàttelu ne ab sëy ak jaamu yàlla la waaye du xeex ab sëy ak jaamu yàlla la waaye du xeex du place bu ñuy xeex moo tax looy def nag na nga ko def ngir jëm yàlla kese ngir yàlla mën la caafari moo tax nag li ñuy dénk nag boroom kër bi am benn ab soxna ak bi am ay soxna yu limu mooy mu xam ne responsabilité bu mag la yàlla gàll ci kawam moo tax muy war di muñ tey digle muñ muy war di gàlloo mettit yi muy war di dal dal gu mat sëkk muy war di maanu maanu ba sax ci digganteem ak ak soxnaam lañuy tëje waxtaanal mooy lu ñu kilifa bu baax waxoon te muy dénkaane bu am njariñ te gàtt dafa maa wax ne ndax dangaa yaakaar ne kër yu mag yi nga gis ay soxna yu bari yu li mu nekk fa dangaa yaakaar ne dafa dal ma ne ko ah ma yaakaar ne daa dal de mu ne mën naa am dalut de ma ne ko nu mu mu ne ma kaay ma jox la ci misaal mu ne ma boroom kër ci biir këram moo xam mu yore benn soxna wala ay soxna mooy dàttab garab car ya ak banqaas ya ñooy soxna ya ak njaboot nee du ñàkk bis day cal meer jaar wala ngelaw baaja yëngal car ya ak banqaas ya ba yëngutu ba kenn yëpp nekk yaakaar na dara dut dal waaye nee na boroom kër su dalee moom moom dàttu garab su dalee lu yàgg-yàgg car yi dañuy mujj dal waaye bu car ak bànqaas yi àndandoo di fenkonte nii mu ànd ak ñoom nee na sawara wuy tàkk sawara du ko fay keneen na koy fay dangay woote ji ku ñëw àtt leen waaye du yow kon borom kër nee na mooy dàttab garab soxna yaa njaboot ga ñooy car ya ak bànqaas yi nee boroom kër na dëkke dal ak teey lu yàgg-yàgg car yàgg bànqaase lu ñu fenqaloog lu ñu yëngutu ginnaaw dal na rek dañuy mujj dal fekk si waaye soo ànd ñoom di yëngutu nee na dal luutu dal kër ga ci tas la jëm wala yaasu ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéggulu ci kàddu bi su fekkee wax nañ fi dul noonu di ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala li ñu fi wax bu dee njariñ yàlla nañ ko yàlla boole defal tiyaaba te nangu ñu suñu te def ci biir néegu si jàmm salaam ñi dëngoo woon itam yàlla na leen yàlla joole yàlla na yàlla defal jàmm ak salaam wa axiru an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëriñ Fadel Bosso wax ji am na solo ci tom bi nga xam ne moom lañ tànnoon ngir jox la ko yaakaar naa liñ séentu woon lépp gis nañ ci li kawe njort dafa mel li mu fi wax lépp rek luñ jara xel la ndax ci tàmm li leeral na ni lii nga xam ne mooy taxattu sawjaat mooy ay soxna yu limu jiitu na lislaam ci lislaam amoon na naka jekk ba tudd ci sax lenn ci ay yonent yoo xam ne defoon nañ lu mel noonu mu jaar ci yonent bi sallallahu alayhi mi nga xam ne mooy suñu royukaay waxtaan ci digganteem ak ay soxnaam nga xam ne moom na ko waaye leer na itam xekk ma yene tax mu ko daan daal am na yeneen gën a sori yoo xam ne moo tax te saa yu ñu ko xoolee am na lu ñu ci mën a xam ndax mën naa am wàllu social moo koy waral mën naa am nga gën a dëgëral ab diggante wala yeneen ak yeneen yoo xam ne yëpp boo koy xool day dellu ci loo xam ne daal da xam ne lii mbirum àdduna tax ko jóg waaye lépp ngir defar ab société moo ko tax a jóg ngir dundal ndigalu yàlla suñu borom moo ko tax a jóg muy wane nag loolu dafa jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ay waxtaan yi ak barkeeloo ko ak war na ne taxal saw jaar saa yu am rek nit ki war na cee am yeneen jubluwaay war ci am ay jubluwaay yu kawe te bañ koo def noonu rek ngir bari ay soxla waaye yeneen jubluwaay yu kawe yoo xam ne moo ëpp solo waaye mu war ne lislaam bi mu ko daganalee ba noppi nekkul lu mu daganal loo xam ne dafa ko bunt bi waaye limité na ko ci ñeenti soxna fi la yëf yi yam ñaar ba ñett ba ñeent foofu la yëf yam waaye tëral na ko ay sàrt yi tam ne saa yu la neexee rek nga jël benn soxna teg ci kaw soxna bi nga yoroon ak lu mën a xew waaye daf koo wutal daf koo tëral ay sàtt te ba ca jiitu te ëpp ci solo nga xam ne mooy tax njaboot gi gën a dal jàmm mën a am te sax ñu sàkku ci ku ne wax ni kuy am soxna la mooy maana mu maana maana te googu jaar na ci wax na ci lu yaatu moo xam ci wàllu li nga leen jox la li leen di moo xam ci wàllu woddaay moo xam ci wàllu dëkkaay wala ci wàllu cofeel bi nga xam ne moo koy am seen gënteeg ñoom donte cofeel bi sax xaw naa jafe tuuti waaye ala kulli xaal maante lu mënta ñàkk la nit ki war na ko yóbbuloo balay dugg ci am yeneen soxna balay am benn soxna war na ko waaye balay jël beneen soxna di ci teg na xam loolu bu baax baax muy lu ñu sàkk kon boobu maante gi tey jur itam ak dal ak jàmm mën a am ndax bu maante kooku amut jafe-jafe lay jur ak ay rëng ci biir diggante soxla yi nga xam ne ñoo fekk sant beneen sàtt ba ca moom mooy mu am capacité am man-man ci mën a gàddu li nga xam ne moom la moom la sëy bi di laaj ak soxla yi li mu yooyu li mu laaj lépp ci wàllu war war ay warteef war na ci bàyyi xel ndax fekkee mënu ko moom sañu ko sañu caa dugg bu fekkee maanute gi amul itam wala ragal na ne du maandu laata mu cee dugg na du maandu waru kon loolu ñaar sart la yoo xam ne war na xel bu baax ginnaaw bi nga xam ne lislaam daganal la euh, mën a soxla lu ëpp benn soxna ba ñeenti soxna ginnaaw bi ko daganalee ba noppi itam daf koo teg ci ay conditions yu tax ah, ak dal ak jàmm mën a am waaye mu ñëw ci yeneen mbóot ak ay ma yu am ci di tax islaam daganal ñu mën a am lu am benn soxla tudd ci am am solo yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne puusoon nañu ñu ñaaxoon nañu ci ñuy denc soxla ndax dafa bëgg xeet wi gën a bari bu ëllëgee ñu mën a am lim bu baree bari ndax da koy puukarew bu ëllëgee ci mbax loolu bokk na ci ñu ubbi bunt ñi ñëpp mën a am soxla am lu ëpp benn soxla loolu bokk na ci li koy waral ci xekk ma yi la bokk mu wax lu am solo loo xam ne réalité ci ci àdduna bi yaakaar naa li muy dund mooy li mu jigéen ñi ni mu ëppee li mu góor ñi ni mu ëppee li mu góor ñi loolu xëy na am na ñu koy waral ndax góor ñi ñaar ñooy dem ci xare yi ñaar ñooy dem ci barab yi nga xam ne barab yu dansé la ñoom ñooy gën a gaaw a faatu ba tax na liiw jigéen ñi toujours ñooy ëpp mu mel ne kon kon taxaddu sawajaat muy ay soxna yu bari wala takk lu ëpp benn soxna lislaam mayewu ko da gis tey mbooloo bu baree bari ci ay jigéen ñoo xam ne fu ñu am seen bu bu mu see daa leen def te loolu mën naa jur ay gàllankoor ak ay jafe-jafe ak ay yàqu-yàqu ci société bi mu tudd ci ay arxaam tudd ci lu am solo ci yenn réew yoo xam ne bi ñu defee seen i saytu ak seen i gis nañ ne li mu jigéen ñi daal ëpp na li mu góor ñi lu baree bu dee ci États-Unis mat 8 millions ci ay jigéen ñoo xam ne ëpp nañ ko li mu góor ñi bu dee ci Angleterre lu mat 5 millions ak ci yeneen barab yu bari tudd na ci ay misaal yu bari kon loolu yaakaar naa doy na sëkk rek ngir ñu mën a wax ne loolu xikma la bu war a tax islam daganal tax du sawjaat muy soxna yu limu beneen bi ci topp lii faatu ci góor ñi demel ne moo ëpp demel ne moo ëpp lii faatu ci jigéen ñi loolu ñu dañ ko si ci bi jiitu woon yaakaar naa loolu rek ay tomb la yoo xam ne juñu na ko te itam ubbi buntu ci léeg-léeg nit ñi comme dañoo wuute léeg gis koo xam ne xëy na benn soxna rek du doy ci moom ndax xam nañ ne léeg-léeg jigéen ñi am na yenn yu leen dal am na yenn gàllankoor dañuy feebar kon baa mu ubbi bunt ngir nit mën a takk lépp benn soxna loolu yaakaar naa dana tax ak dal mën a am ba tey daa tax góor gi nga xam ne moom mën da muñ loolu mën a nekk ci jàmm te itam feebar day dalaat gàllankoor day am léeg lekk léeg jigéen ñi dem mën a xam ne kii nekkul ko mën a am doom yoo xam lu ñuy xam lay doon ñu xam ne kii daal nekkul ku mën am doom euh, ci wàllu médecine ñu saxal ko waaw bu fekkoon dañ ne soxna yu limu kenn sañu ko benn da nga koy wàcc dem takki keneen te loolu dana nekk lor ci moom benn nga téye ko doomaa takk keneen ndax soxla yu bari dañ naan daganut kon baa baax dañu gis foofu lor mën na ci am ci góor ku góor gi mën na ci am ci ku jigéen gi kon lislaam bu ubbee buntu boobu dañ gis foofu ay njariñ yu bari yu ci nekk ba tey mu gis itam ne yeneen intérêt ak yeneen njariñ mën na cee am ci wàllu lu gën a taxal diggante société bi ndax soxna foo ko jël fu ne rek day ne kenn ka ca njaboot kooku ma lu ñu tuddi wàllu koronte ak ci aju liñ seetlu itam ci jamono ji mooy gis nañ mbooloo mu bari ci góor ñi wala ci jigéen ñi ñoo xam ne amuñ benn plaisir wala bëgg-bëgg ci am soxna wala bëgg-bëgg ci am borom kër wala sax gisaguñ ka nga xam ne moom la ñuy wërs gisaguñ ka nga xam ne moom la wërs xëy na nag da tax gisuñ ko yeneen la kon yooyu yëpp boo ko boolee day wane ne lislaam ubbi bunt bu benn nii ba nit ki mën a am sañ-sañu am lu ëpp benn soxna loolu da xam ne kon nekkati lislaam daan luy bàyyi xel réalité bi te diine la joo xam ne dañ ko indi doomu aadama mu dëppook ni ko yàlla bind ak ni ko mooñe waaye dëppook itam euh, li muy dund dëppook li muy dund ak ay xew-xew kon loolu yaakaar naa bu ñu ko junjee rek ci biir xekkam yi nga xam ne tudd na ko ba bay sëkk laata mu ñëw nag ci jeexit yi nga xam ne taxaddu zawjaat dina koy indi maanaam nag yi nga xam ne ñooy daje ci genn buum daje ci genn góor yan jeexit lay indi li ci ëpp solo foofu rek li mu wax ne nekkul ne jëm mi lim bi wala limu bi moo ko waral waaye lépp day dellu suñu comportement day dellu suñu ñàkk ab yar day dellu suñu ñàkk maalu ci wàllu tatbiix bi ci lay dellu ni ñu ko appliqué waaye nekkul ne ci yàllu taxadut bi wala waaw limu bi foofu lay fi nekk kon wàllu principe bi moom lu baax la lu am ay njariñ la waaye gàllankoor yi ak jafe-jafe yi li koy jur mooy ñun suñu biir ni ñuy dundee léeg-léeg góor goo xam ne xëy na maan gi ko lislaam santoon ne ko bu fekkee ragal nga ne doo maandu kon nga yem ci benn ba xëy na maanute googu moom mooy li fi nekkut ba tax ñu gis ay jeexit yoo xam ne yu doy waar lay di am ci biir njaboot bi ak ci biir li nga xam ñoo fekk yaakaar naa lool mooy base bi mooy li nga xam ne mooy cëslaay yëf yi mooy maanute gi maanute gi bu xasee am rek yaakaar naa dal mën naa am ci biir njaboot bi tudd na ci nag ay misaal yu bari ak ay wax yoo xam ne xëy na yu ñuy faral di wax la ci biir société bi nit ñu di ko faral di wax moo xam ci góor gi la moo xam ci jigéen ñi demel ne ak tuumaalante rek doon kenn koy tuumaal sa waaye day mel ne yooyu yëpp buñ ko jàngatee xoolaat ko ba ci biir day gis daanaka nekkul lu tege ci cëslaay lu dëgër li am solo daal mooy maalu teg waaye tawsiyaat yi mu indi ci mujjantal bi mooy ay ndenkaan yu am solo góor ko ne war ko bàyyi xel jigéen gi ne itam war ci bàyyi xel war a sellal yéeneem laata ngay dugg ci lu mel nii xam ne ak jaamu yàlla wala say jaamu yàlla kon képp ku ci dugg na ko jàppee noonu jàpp na day jaamu yàlla sellal yéeneem gëm dogalub yàlla tam ba lépp ci gis ak képp ku ko yàlla booleel mu xam loolu dogalub yàlla xam na ko léegi naka la koy maîtriser ba coow mën a am bañ a mën a am wala ay yeneen gàllankoor yoo xam ne day feeñ ci biir njaboot bi yëpp gëm na itam wërsëg ci loxol yàlla la nekk njariñ ak lor ci loxo yàlla la nekk waaye li ëpp solo muy wàllu fiiraange bi bu ñu ko doon jëmale ci lu yàlla bëgg loolu wax na ko ci mujjantal bi fiiraange bi bu fekkoon ñu koy jëmale rek ci lu yàlla gërëm loolu lu am solo la kon day day am wujje boo xam ne am na solo baax na am wujje boo xam ne amul solo amul solo wujje bi am solo mooy mooy naka ngay def ci kaw loo xam ne lu neex yàlla lay doon ba mën a am ngërëmul sa borom kër am ngërëmul yàlla te lépp nag nga teg ko ci bañ a lor bañ a lor bañ a lore wujje boobu ak fiira fiiraange gu mel noonu mooy gi ñu soxla waaye lépp nag loo xam ne day dellu ci luy lor keneen wala luy jaxase ab diggante loolu lu ñu sàkk kon daal waxtaan wi ni ñu ko bëggee woon ak ni ñu ko woon lépp kawe na njort am na solo yu ñu fi wax yépp yu jar bàyyi xel la xam naa góor ñi ak jigéen ñi nag ñoo ci yem war nañ cee bàyyi xel xam ne kon ek sëy jaamu yàlla la nekkut rek li ci gën a tuuti mooy liñ cay am ci wàllu bànneex waaye leneen lañ cay am ci lu gën a kawe muy jaamu yàlla gi yaakaar naa loolu jar na ci bàyyi xel bu ñu xamee loolu rek dana tax ñu sellal suñu ñu xamee loolu dana tax nangoo muñ bu ñu xamee loolu dana tax ñuy jellale bu ñu xamee loolu dana tax ñuy jellale kon jaamu yàlla ku mag te ki nga xam ne moo ci mis suñu suñu royukaay di suñu misaal mooy yonente bi salallahu alayhi wa sallam ak nam ko tuddee woon mu indi ci ay misaal yu am solo nga xam ne saa yu ne rek day gis ne kii li ko tax a jóg mooy xeet bi doomu adama ak yërëm doomu aadama ak dimbale ko ak taxawal sariatul islaam loolu mooy feeñ ci mboolem yi mu waxoon yépp tàmbali bi kon ñu ngi sant Serigne Fadi Bousso Thierno di ko ñaan lu yàlla yokk ab xam-xamam bàyyi ko fi itam Euh, ba li bëgg a liggéey lislaam lépp man koo àggale lépp ànd ak barkeel kon dañuy gaaral leen ci ay laaj yoo xam ne jot na fi rot yoo xam ne yu aju ci doon waxtaane la kii day laaj xadis bi nga xam ne mooy wax tunkaxul mar'a li arbaa xadis bi nga xam ne day junjune jigéen des ko denc ngir ñeenti mbir du ci wàllu diine du ci wàllu askan te du ci wàllu daraja ak alal wàllu askan bi fii lay laaj tudd gi mu ko tudd mu ne ndax day tegtale ne nit ndax nit mën naa saña a denc ak jigéen ngir ne ci askan sàngam la bokk waaye moom li mu bëgg fii mooy jigéen bokk ci aw askan sàngam tax mu ne moom du ko takk soxna ndax fi mu bokk ndax loolu sañ na ko ci lislaam waaw jërëjëf boroom xam-xam yi nag ci wàllu fiq am na ci bunt boo xamante ni ñu ngi ko tudde alkafaa bayna zawjayn loola itam la tax euh, ñu koy def mooy dafa bëgg ñaari way dencal yi tey ñuy tolloo ci anam yu bari ba nga xamante ni kenn du gis ca moroom ja lu muy xebet ca moom looloo tax ñu andi ci sart yu sart yu mel noonu ndax dañoo bëgg sëy bu nekk loo xamante ni luy sax da ba faw la ba kenn ci ñoom ñaar wuy ji borom kon nag lépp loo xamante ni dañoo yaakaar ne suñ ko jeqee ëllëg bu sëy ba taxawee ba noppi mu indi ca gàllankoor loolu dañ koy bañ moo tax euh, aada day am ci réew nag yoo xamante ni jëru di euh, féetale ginnaaw ndax bu fekkee aada ji day bañ ñenn ci xeet yi di sëyante ci seen biir ko lislaam nangoo itam boo demee ba ca biir itam ko aada aada mën na ko yàqaat te lañ bëggoon mooy lépp loo xamante ni yaakaar nañ ne buñ ko sullee ci bu sëy bi taxawee mu yàq ko loola nañ ko éviter mu bañ a am kon bu yonente bi andi satu sam baxee ne euh, yooyu mu tudd des na denc jigéen ngir alalam wala diineem wala askanam waaye ba ci jeexita dana ne maam yooyu yépp bu bu nekkee ay sabab yu tax ñi ci denc jigéen itam seetal bii mu ci ëpp solo mooy fadfar bi daati diini tariqat ya daal mooy seetal borom jikko ñu baax nga jàpp ca kooku nag foo ko mën di fekk itam mën nga caay waaye nag ëllëg am na yoo xamante ni bu fekkente ni way jur yi ànduñ ca wala xeet wa nga bokk ànduñ ci itam ëllëg bu jafe-jafe amee yaa koy wéete loolu rek mooy indi ci wàll boobu moo tax euh, alkafa bayna zawjayni daal bunt la boo xamante ni bu ñu mën di nafar la ci wàllu woy dencante yi ngir lépp loo xamante ni buñ ko sul sullee ëllëg bu sëy ba taxawee mu andi cee jafe-jafe rek ñu may ko man koo moytandiku ca tàmbali ba ndax wala fii dañuy wax naan sëy la ko tas nuyoo na ca tàmbali ba waaye dañ koo fay loolu rek lay firi ci wàllu boobu mooy am na loo xamante ni doon nañ ko ñuuramtu ci biir te feeñal mu ko ñu dem ngir di nës nësal dem ba ba yëf ya taxaw ñu feeñal ko mu yàq yëf yi te lislaam ni bëggoon nag bu yëf ya taxawee bañ a yàqu wéy ba keroog ñaari way dencante yi wuñ borom. jërëjëf yaakaar naa laaj boobu leer na kon liy daal ci benn laaj ki day laaj ne ndax dagan na ci ab jullit mu denc lu ëpp ñeenti soxna ci kaw bu fekkee dañ ne limu jigéen ñi dañoo ëpp limu góor ñi lu baree bari si dem sax ba yaakaar ne xëy na jigéen ñi jullit ñi dañ dem ci yéefar yi wala dañ tàbbi ci lu araam ragal nañ ci loolu ndax boobaa dana dagan ci ab jullit muy denc lu ñeenti soxna waaw xam nga nag ñun eh, xam-xam bi ñuy jàngale ci téere yi dañ koy jàngale du téere yi wax itam moom la ñuy nettali téere yi ñoom ñeent yooyu la ñu am koo xam ne jéggi na ko nag kooka lañuy laaj laaj tax mu jéggi ko loolu moom moo koy mën a leeral bopp waaye lii liñ jàng ci téere yi daal ñun moom la ñuy tasaare jërëjëf loolu yaakaar naa ma daanaka maalum bi la din bi loolu luñ pare de ku nekk la nga ciy dégg xam nga aaya ji mu ngi tàmbalee wala an tastatiu bayna an taadilu bayna genn wàllu xaaju aaya bi ci biir waxtaan wi dama ne am na ñu ne am na ñu ne liñ dégg ci foofu mooy maandu teg xol muy ci wàllu mbëggeel loolu sunu borom moom lu la jubloo wax foofu ne mënul leen ko donte ne xër ngeen ca mu teg ca ne ko nag ku ko firee noonu wala tamit doo kullal may li mooy bu ko manifesté bu ba mu feeñ ci seen i cër ndax boobaa loolu day ak yàq lay daal mu doon jërëjëf mooy li njëloon na trop ñu ngi ci leeral bi sant mbooloo mi nga xam ne teew nañ ak boole bu doon toog ak fu ñu mën a nekk dañuy seetaan di leen jox daje suba am na benn jotaay bi ñu amal boo xam ne muy fataaw yi lay doon ñu ànd ñu ànd ak seen bàcc xam wax na suba incha allah dañ ci bàyyi xel ci waxtu bi kon ñu ngi sant jëf di gërëm ñëpp di itam gërëm mboolem bi nga xam ne teewoon na ci wàllu garas bi ci njëkk rek baax a baax na alhamdulilah rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh